di leen wax ngeen dal ak jàmm leen ma sawu ci yoon wi ak jafe-jafe ñëw gi waaw Ablaye moom ñun am na lu xam ci moom ndax dañuy ñëw fee ca looyeen looyeen fii daanaka nag foofala suñu suñuy bokk nekk duñ fa jóg guddeeg bëccëg suba ngoon Cheikh Fallou mii suñu rakk la ñoo bokk baay gis nañ la muy def foofa bu baax moom gis nañ ko te xam naa moom lu fi bëgg keneen bëgg ko fi soo kaa ñàkk waaye incha allahu rabi moom day am ndax nag la ngay dàq kéwél mu jëm ci àll ba yaakaar naa daal ko mu jëm si ci kër gi moo gën a wóor waaw. Ablaye mbokk la mag la doom la lépp la mbooloo moom am nañ ko te déggal nañ ñu moom am nañ ko te déggal nañ moom jox nañ ñu bopp bu baax a baax. yoonu màggal yoonu bàqawu yaatu fii nii moom moo def noonu oto bi ñëw nañ fi am kay ngir loolu kooku nag xañ na xam euh, xamul it ay yéen ba maanaam def loolu kooku ci li séntu ci moom maam bu ko yàlla dogalee ci moom ak ak ak tawfeex la doon ci ñëpp waaye saa na xam bi laa dara rek njariñ la benn lox daal laa xam moom mi ngi ci moom loolu ay wax kese yi maanaam kii ko ndax man daanaka baaxuma def yi waaye faaw ñu jàppale ko ci yi ak ci présidentielle tamit incha allah ñaan saa borom euh, defal ko tawfeex la muy séntu maam dara ab jiw laa ko noom ab dimbalikat bu a mag ñu war a dimbali yaakaar naa tawfeex la doon di wax ne kenn ku ne ci yéen ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi di wax ne liggéey bi nga xam ni moom lañ moom lañ lañ baaxoo di liggéey depuis ba affaire bi commencé ba léegi ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax ñi ñu ci ànd ak parce que ñoom ñu ngi ciy def liggéey bu jéggi dayo te li gën a am solo rek mooy àdduna li nga xam te ni yow bëgg nga ko jëmale ko ci nit ki ak yéene bi nga am ci sa dëkk te yaakaar naa ne président Abdoulaye Sylla jiital rakam ji nga xam ne ni ndeysaan liggéey bi mi ngi ciy def lu mu war a def mi ngi ciy sonne ni mu war a sonnee mais moom it dafa jël liggéey bi ànd ko ak ñi nga xam ni ñoom la ko war a ànd ak ndax boo xoolee il est bien accompagné ñi nekk ci côté am ngi koy dimbale di ko jàppale di ko xelal na ko nii nga war a def ak nii nga war a def donte ne moom xelam mu rafet mi ngi ko ciy boolewaale yéen nag soxna yi ñu ngi leen di jégalu bu baax ci di wax ne maanaam yitte yi ñoo xaw a bëri rek mais li yitte yi bëri bëri bëri xel mi ngi ci yéen ba nga xam ne nii maanaam dem na ba nga xam ne nii am na ñoo xam ne nii dañ leen a xaarloo pour ñëw yéen pour yéen ngeen pour ñëw ñu commencé ci yéen ngir ñu mën a continuer suñu liggéey ndax cofeel gi am ci yéen ak yaakaar ci foor gi am ci yéen ah mbirum présidentiel wala mbirum parrainage ak yooyu ay wax kese da koo sotti ndax li koy sottal mooy Euh, bu la laajee benn nombre de nombre de euh, parrainage bu ñu la ko laajee il faut nga am ñoo xam ni dañuy génne seen carte d'identité génne la nga xam ni moom moo koy doxal loolu nag moom la ñu sàkku ci yéen te ñun nag wax dëgg yàlla am suñu yéenee ci yéen ak ci biir Touba maanaam li nga xam ne ni yéene nañ ko dañoo bëgg def lu kawe suñu njort te bu boobaa ci li muy jógee ci yéen parce que jógee ci yéen mooy da ngeen ñuy parrainel parrainel doyut mais ku parrainel ku ne xam na ne lii li nga xam ne ni moom mooy mooy tax euh, président Abdoulaye Sylla defar dëkk bi mooy ngeen woteel ko te voté googu noonu àggaguñu ci waaye nag dañoo dañ ko ci njàmbaasaale parce que moom mooy principal affaire bi waaye nag bu ko defee tey jii ñi nga xam ne ni tey ñun moom lañ àndal ñoom dañuy def liggéey boo xam ne nii liggéey bu mucc ayub la fii muy fii muy feneen te noonu ñu koy defee nag damay ñaan yàlla ñu continuer ci loolu ba nga xam ne nii lépp loo xam ne nii mébét nañ ko rek suñu borom sottal ko te bu ko sottalee suñu borom def président ab Ablaye Sylla nekk président fii nii ci seen mën suñu bopp yéen ngeen gis seen bopp ñeneen ak gis seen bopp seen doom yi di ñëw gis seen bopp te loolu noonu ab jaamor du leen ko defal parce que tey boo jëlee woon tey keneen beneen président bu jógee feneen bu ñëwee wax la ay waxam tamit bu ëllëgee dangay gis ne loolu noonu da nga wax rek teg ko fa mu dem mais président Ablaye Sylla yéen a ngi koy gis mi ngi def ay ay ay démarches ñii nag sama xamante ak ñoom yàggul mais nag tubaab dafa wax ne parfois y a des rencontres yoo xam ne ce sont des rencontres hasardeuses yoo xam ne ni day jógee de nulle part loolu na suñ borom dogal si ñoom ñoom ci man cofeel maam ci ñoom cofeel te loolu nag bu ko defee maam dañ koy boole ñun ñëpp mu nekk suñu arme ñun ñëpp ñu ànd liggéey te liggéey bi li muy li muy neex neex neex neex neex neex ñun ñii maanaam duñ ci dara ñun ay représentants lañ ay figurants lañ rek mais yéen yéen a koy sottal ndax ka arme kenn ku ne sa arme sa carte d'identité la ginnaaw ba nga pare ne ba pare da ngay voté te voté yooyu nag daanaka mooy tey jii buñ liñ yitteel li ñu gën a loolu ci la bokk waaye parrainage bi tamit mooy tax ñu ne ñun ñi am nañ nombre de parrainage bi ñu soxla woon pour ñu mën a bokk waaye bu loolu jàllee it euh, maanaam voté moo ci am solo képp koo xam ne ni yàlla defa nga ñu pare nga parrainel ñu boo ñu parrainel nga dim nga ñaan ndimbal mais dañ lay wax ne la xoolal ci li ñuy def parce que président Abdoulaye Sylla man kii waxuma ko ndax mooy rakam waxuma nu lu mu def ci dëkk bi mooy rakam mais man sama maam Alane Ndiaye programme moom wax kan mooy président Ablaye Sylla parce que programme mooy porte parole waa kër Serigne Fallou gannaaw ba mu nekkee porte parole waa kër Serigne Fallou ba tey mooy day taxaw ay liggéey yu bëri ci jumaa ji ba keroog bi ñuy waxtaan mu ne ma euh, barab bi nga xam ne ni mooy Serigne Fallou barabu Serigne Fallou biñ ko doon defar booba ñëpp dañoo ñëw kenn ku ne indi li nga am te Serigne Fallou ku ne xam ne ni mel ci sen ci fii nii ci Sénégal waxuma laa fii Touba keroog dafa ñëw ne yéen ñëpp dama bëgg ngeen boole li ngeen am ngeen jël ko ngeen def ko ci seen bopp man mën naa engagé affaire bi kon kooku xam nga ne kon bàyyiwul fa nga xam ne nii fa lay dëkkee fa lay commencé ndax dañ naan ba bay ci sa tànk booy liggéey maanaam fa nga nekkee fa ngay commencé ba pare ndax bu fekkente ne yàlla dalaa dimbali nga nekk ci benn bërëb da naan la bale ëtt waccu buum kenn du ko nangu maanaam fa nga nekk fa ngay defar fa mu nekk ma ngay defar boo koy def lu mucc ayib te fii la jëm si diggante foofu ak fii soreewul te yaakaar naa ne kon ku la ku la jox añ bu la diggee reer war nga koo gëm te foofu lañ toll ak président Abdoulaye Sylla ñu ngi koy ñaanal suñu borom def ko président bu ko defee bëgg-bëgg yëpp dana sotti incha allah maa ngi wàcce kàddu bu foofu di jégalu ñëpp waaw Touba ñëpp dinañ kontaan waaw muy jigéen muy góor gis ngeen dëkk bi taa bi ni mel lu bëri mi ngi fi commencé jóge ñu dugal ci seen carte d'identité bu ñu dem yóbbaale ko ndax tamit dina dooleel liggéey bu bu baax a baax a baax. magam am ndam waaye loolu nag day ñëw boo leen ci ndax nit ki booy dem da war a am ay accompagne mooy booy dem guerre da ngaa war am ñoo àndal waaw loolu nag yéen ñii dañ leen cee soxla mu mel ne dañoo jëm ci wàllum parrainage parrainage bi nag buñ ko waxee mooy da may nit ki doole ci terrain bi muy guddi ak bëccëg gis seen bopp gi ngeen ci war def nag ginnaaw gis ngeen Baye Sall mii te Baye Sall moom la fi nekkal ngeen jàppale Baye Sall ndax bu ngeen jàppalee Baye Sall mii yaakaar naa ab Abdoulaye ngeen jàppale ndax ginnaaw moom la fi teg nañ koy xoole jëmi Ablaye lépp loo xam ne nit bëgg na ko defal président Ablaye si la mu defal ko euh, Serigne Saliou si la muy toog ndax kat gis nañ moom liggéey bu bi muy def ci dëkk bi depuis magam jox ko liggéey bi yaakaar naa toogul